ndeysaan Borom Diom Baato ndeysaan bii mooy deuxième sortie moom Gandia Fama dafa amoon combat weekend passé moo daan ndeysaan le prince du Diom Baato Ndigal bu Sana ngoog ndeysaan ànd ak doomu ndam ceeb bu Joal ndeysaan ceeb bu Joal moo ko andi de moom Ndigal Dialme Kër Ndangande Ogo Ogo maa baa ngi noon depuis Espagne sama bopp maa ngi lay siyaar ndeysaan Ogo bu dugg ngi koy siyaar waaw le grand champion bu gàtt sëg ndamal daanu ak ñoom Samba Siga maa ngi di bëggee bu baax a baax depuis Espagne double moteur asi pour Dialme waaw l' espoir de Palmarin wala ma ne un parmi les espoirs de de Bigu Juwala El Hadj Malick Samsam si maa ngi lay siyaar ndeysaan waaye sama grand Pape Lo depuis maa ko depuis États-Unis maa ngi koy waaye Khalifa depuis Allemagne ndeysaan seen boy baa ngi noonu ba musa sabu kasi po dyan. Ito sa po kubang jangok. Pesa lahat ka na pa musa sabu. Dikap jikin si boy. Wala ba na jikap jikin si bubang ni mampa musa. Thank you. kan sai ka san ko da kan sai ka san supo jande ndeysaan ànd ak Poulain am Ndiangar ndeysaan Poulain am andi ndeysaan démb moo demi final fële fadik Fatick gan Gane Seras demi final la kemana fadik Desa ndeysaan hannde da dabu yoodir meke ndangan ndeysaan Poulain am Ndiangar Faye wala le Ndiangar bu ndeysaan mbongo Mansour production moom ñangar a grand maa ngi koy siyaar wala bu nekk poulet ci mbalka maag ndeysaan ñoom ñooy def dañ final kaw ko du ñoom Assane aja gaay nee nañ ko gis ñu jarul laaja nga ne ponkal bii mooy daagu si sol sa poids asi koo jël hata lupoja lumu aca abis bi na combat diggante Ameth double moteur ak Bara Mack bu Moundé Ameth double moteur lañ jaakaar lool Bara Mack bu Moundé woon gannaaw ndeysaan ñu ngi si huitième de finale poids léger yi fii ca Ndangaan ndeysaan ànd TV Ameth double moteur mboogu Ogomar bi ndeysaan sama boy depuis Espagne maa ngi koy siyaar double moteur Bara Mack huitième de finale poids ça, c'est sama grand landing Sarr borom Toubacouta maa ngi koy siyaar waaye Mansour production sama grand maa ngi bah bah, bu baax a di FIFA double moteur paaka maak double moteur paaka eh double mu tànk baax maag double jëna tànk bi jëna tànk baax maag eh eh baax nga génn si amee nag baax maag eh eh baax tànk double mu dëgg jëna tànk dëng double mu dëgg eh eh lu muy eh baax maag dar ko de aca moo gis palmarin ngoog aca Maurice Palmarin a sipo jan waaw waaw caporal dafa luux si tey é Maurice a ngoog ndeysaan dafa demoon clandestin mais mujjee ñëw egg ndeysaan Maurice a ngoog doom day muña Saloum a nga ngoog é aca yanku ñoo jox a ngoog Yankuba Niodior ndeysaan aca ñu nekk ci mauvaise ba léegi ndeysaan nee naa leen dafa demoon clandestin waaw waaw moom Maurice mais mu jul yeeg ndeysaan ci làmb ji hé Caporal palmarin Aja izin teknik a ngoog he usine a ngay izin izin izin teknik. technique usine technique bu ñaan mbogu grand ous baa ngi TV. borom Pacinto us TV

Pajang senang ang wag. Pajang Gaisen kita kanya. Pajang Gaisen na si Pojan Eh Johnson eh, senang wag. Desa Dembu Fatik Mufinalu. Pajang ordinateur moo ko génnee final ndeysaan tey mu ñëwaat na nga dabu ko eh Johnson masuk Ajak Abid Abid mu waaj a sifflé ndeysaan diggante Mame Fadé bu Joof Yor la ak Ndiol Aku jual bëgg nañ ba ñëgaaw ñu may leen puus ndeysaan ñu leen di wax ne Mame Fadé moom am na deux avertissement Mame Fadé deux avertissement la am Ndiol bu Sana am benn donc Ndiol bu Sana plus avantageux Mame Fadé Ndiol bu Sana Ndiol jël na ko tànk Mame Fadé Ndiol ak Mame Fadé Ndiol ak Mame Fadé Ndiol Mame Fadé Ndiol Mame Fadé Ndiol Mame Fadé yéen koy yëkkati wala Ndiol la koy. Mame Fadé. Ah, a ganga xotin de Mame Fadé ca ah, non non wala gaay o lenga de wo 아, 아, 엘고 뭐 이야기한 부분이 나는 다른 조수인데. 예? Mame Fadé. bàyyi leen li ngeen di wax. Mame Fadé ak Pa Moussa. ndeysaan. revanche la. Mame Fadé file na ko di jël na tànk Mame Mame Fadé Mame Fadé Pa Moussa Mame Fadé Mame lu mu wax Abid lu mu wax. hé hé wax na ko ndamu de. wax na ko ndomb de wax na ko ndomb de planti planti maam maam Pa Moussa hee hee maam Pa Moussa Pa Moussa wax ko ndomb planti wu lam hee Pa Moussa de maam daa mel ni na aca ganja fama 15 na Fama 15 secondes. Quinze secondes Gandia Fama. ganja Fama 15 secondes. Aja Kensangan जफा में naan Gandia Fama Kees nag sol na ko naa sol na ko saako yi nee nañ saako yi eh eh. ndeysaan combat bi metti na I'm going to. ba jeex na temps ba jeex na temps ba jeex na Gandia nee am na ko quatre quatre wala cinq eh Gandia daan na ko Gandia gàññ na ko aca abe sifle waat na Manfaga Sanyana Yanku Yanku ak Manfaga Eh, ak Eh, lu mu wax lu xew avertissement pour Manfaga Manfaga jël na avertissement ne loolu de Mount Saka. ndax suñu maam yàgg yoon fii ndox amul génn bopp yàgg yoon léegi tey sësuñu sësuñu yow léegi ma ni nii du ma bàyyi ma xel malgré que xale naa waaye fekke nañ seen yàlla yi dañuy taxaw sama yaay ñaanee li ne taxaw moom fii lañ fee war a taxaw man yàgg naa sa yoon seetaan tey rek laa ko moom officiellement nii rek parce que invité nañ bopp ñaa xaw def ko invité d'honneur làmb mais yàgg naa sa yoon yang gue udah jalan deh, yang mau mau maafkan maafkan aku bukan buat hehe eh. yang mau manfaat, hei, eh. yang mau manfaat, yang kau lebih definisi.

comme ñaar ñuy àndal ñun amul ci biir bi ay mag la fi am ay xarit la fi am ay dëkkandoo la fi am ay yaay la fi am amul ci biir temps certes dañuy politique waaye tey jii lamb moom lépp yëpp mbokk moom ndax xam nañ ne waa Dakar dañ ko jëlee ba xaw a ba su ñëwee wóor ba laaj ko te loolu mooy résultat bi kawam nga xamante ne question boobu ci ci ci ba ne ñàkk xam dafa am am na loo xam ne tey jii réewoon nañu waaye programme xaare xaale yi dafa bëgg lu bari suñu diggante ñu waa Fatick xaare xaale yi donc lii fekkee suñu kóllëre la war na suñu ancrage bi ñu taxawoo ak waa Tànga di ko yemale fii ay lay am na ko baax asalaamaaleykum waa Tànga asalaamaaleykum ñun ñëpp ñu ngi wax pare wax fii bopp ñuy wax instant yi day jéem a gérer ndaxte maam Fara am na avertissement yaa ngi ko koy bëtt maam jox na ko wet bi de yaa ngi ko maam Fara da Wala Franck Yankou. Hé hé. Aja paham mau gagner perpu. Demi final poids léger. Hé, mon frère Yankou. Mon frère Yankou. Hé na. lamba jeex na Yankou gagné na ko aja Sox Sox mu gis Caporal part mo gis kapogal ndeysaan Jojo Paat moo féete àddu àddu ndeysaan mbogu tata Jacqueline bi wala ma ne mbogu tata enquête bi moom Jojo Paat mu mag mo gis kapogal ndeysaan Jojo Paat mo gis kapogal daan na ko Sossokh daan na Déboye Lamba Diané Ngom Aca Ngamba Ngom Badiane a ngoog ee nga Massa waaw waaw Papa ngoog hee ngam aca ngam a ngoog aca la baade taana bu arbitre sifflé na visite technique Kaptan Seras visite technique Kaptan Seras ndeysaan quart de finale poids lourd fii ci Ndagane visite technique lañ jàkkaarloo Jovan mun mun gannaaw से अगस्त दिन तक नहीं

terbaik Thank you. dagdaganan ako sa a da a jël la demi-finale poids lourd diggante Gan Sène bu Ndiaga Niao ak Zozo Boite Zozo Boite moo ñu woon gannaaw Gan Sène lañ yaakaar lool nga jël tànk Zozo Boite nga jël tànk Zozo Boite eh eh Zozo Boite ak Gan Sène Jojo Paate Ngagne Sène Jojo Paate Ngagne Sène Jojo Paate Ngagne Sène Jojo Paate ko Ngagne Sène eh, eh. wong na ko ndombu de da koy yëkkati wala Ngagne Sène Jojo Paate Ngagne Sène Jojo Paate naan diwu lamb Ngagne Sène Jojo Paate jël amagul abit lu mu wax Ngagne Sène Jojo Paate Ngagne Sène Jojo Paate rendez-vous lamb nga seen Sox sa boîte eh eh nga seen Sox sa boîte nga seen Sox sa boîte eh nga seen daan na ko nga seen daan na ko de. Aja habis menang final Ramadan. Babou Kampoma diggante Babou Kampoma ak Oma Boul Oma Boul lañ jàkkaar lool Babou Kampoma woo ñu woon gannaaw ndeysaan Babou moo nekk à domicile Oma a dangaan la Oma Boul moo bàyyee ko Mbar ndeysaan sama kanam laa ngi saa bu ma ko baaxul dama koy siyaar waaye docteur Oumou Lyon maa ngi koy bëggee ndeysaan di bëggee sama grand pita ndeysaan Seeku Baba sama doom bi dama Espagne Malaysia Oumar Boun jël na ko de Oumar Boun sol na ko naar sol na ko naar Oumar Boun sol na ko naar Oumar Boun sol na ko naar Babou jàpp na Babou ndengeñ na ko Babou ndengeñ na ko Baba ko Oumar Poul ndeysaan sama nijaay Demba depuis Parcelles maa koy siyaar ndeysaan di siyaar sama grand ya fa nekk ñoom bienvenue ñoom yaa niko Babou Kampama ak Omar Goun ndeysaan sama Sénégalais maa koy bëggee Dan di bëggee mafia bi PJ, PG tokit babu, babu baabu pun, buun ma buun koy forcé de da bëgg babu génne baabu ak amag ko demi final bi yaa Adja Fama la ak Pa Moussa sa bër ndeysaan bëgg bëgg nañ bëgg ñu kaw ñu may leen pause ñu may leen pause ñu ñëwaat ndeysaan di siyaar ñëpp ndeysaan sama grand lan lig sa borom Toubacouta maa ngi koy siyaar ndeysaan Moussa Thiaré bu El Bandi ganja tagg na de ganja sol na ganja sol na Pa Moussa wog na ko ndomb plan diw lamb tegal 16 wog na ko ganja Pa Moussa ganja Pa Moussa Hey, eh, eh. hey. nga jag Pa Moussa hee abit lu mu wax abit lu mu wax abit lu mu wax abit lu mu wax abit lu mu wax abit lu mu wax na ko de aja abit sib waat na diggante usine technique usine technique ngeen seen ndeysaan bëgg nañ ba ñagaaw ñu may leen pause usine technique ngañ seen final poids lourd fii ci Ndangane organise une technique final poids lourd. ndeysaan global business service ndeysaan suñu grand boobu Ligco ñu ngi koy siyaar ndeysaan Moussa bu El Bandi usine technique completed. Zintegri Amadeus sama Vertisma Zintegri Amadeus sama Vertisma dapat dia berkerauki Lesan telolok pun juga Kadang Miwi Lengkan Sen